jëf mbokk yi ñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu baax di leen jaare ñu ngi ni ak Arfan Diédhiou mi nga xam ne moo jiite association sénégalais yi nekk fii Argentine ak ki nga xam ne mooy Babacar di vise président yi tey nag ñu fas yéene def ak ñoom waxtaan euh, du ñu def lu dul rek jox ki nga xam ne mooy Arfan jeeju suñu micro mu nuyoo mbokk yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu euh, ñu ngi nuyu sénégalais yëpp. di déglu télé bi Touba Argentine TV euh, di nuyu kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp euh, man la jeeju Diédhiou euh, nekk président association des sénégalais fii ci Argentine ma ànd tey ak sama vice président muy Babacar Mbaye ñu fas yéene ñëw toog waxtaan ak sénégalais yi ci maanaam événement yi fi jot a am ñëpp xam nañ ni. chaque vingt cinq décembre euh, chaque deux ans maanaam le vingt cinq décembre dañ doon amal assemblée générale ordinaire boo xam ne dañ ciy boolewaale réélection du bureau ren nag euh, bi le vingt cinq décembre jàllee euh, wax dëgg yàlla nit ñi aussi gisuñu ne am na assemblée générale boobu def nañ ko te gisuñu aussi renouvellement de bureau nuyoo bu am solo boobu nuyu nga ko sénégalais kon bu ko defee rek ñu jox Babacar mi nga xam ne mooy vice président mu nuyoo ak mbokki Touba Argent mbokki Argentine. salaamaaleykum mbokku sénégalais yi nekk fii ci Argentine man la Babacar Mbaye vice président association des sénégalais résident en Argentine waaw tey nag ñu ñëw rek pour waxtaan ak communauté sénégalaise bi nekk fii ci Argentine. ci li nga xam ne moo soxol association bi ak euh, assemblée général bi nga xam ne si moom lañ dégmal <coughs> incha allah fii ak i fan. waaw jërëjëf Arfan Diédhiou euh, suñu première laaj ak yow rek mooy le 25 décembre lañ jàppoon li nga xam ne mooy élection yi pour association sénégalais yi fii kan mooy nekk président waaye boobu ba léegi gisuñu ne wa euh, élection yi am na loolu ci yéen la wala ci lan la daal bëggoon nan nga leeralal ñu ko ngir mu leer ci boppu sénégalais yi. waaw euh, Assane maa ngi lay gërëm di la sant euh, di jégalu bu baax a baax aussi ci sénégalais yëpp euh, c'est vrai chaque vingt cinq décembre association bi dafa amoon li ñu wanaan assemblée générale ordinaire maanaam at bu nekk le vingt cinq décembre dañuy organiser benn assemblée générale boo xam ne dañuy ñëw ñu def si suñu bilan ci at bi su ko defee léegi chaque deux ans moom assemblée ordinaire bi day ànd ak élection bureau maanaam bureau bu bu bu bu mujj bi day jeexal day joxe bilan ba pare euh, jeexal mandaam su ko defee ñu élire beneen bureau boo xoolee association bi tey am na 12 ans euh, ñëpp xam nañ ni Boubacar Traoré moo nekkoon le premier président de l'ARSA de l'association euh, bi mu fa jógee mu jox lenge ki ñu naan Abagou bi jamono yooyu yëpp ni ñu doon defee élection mooy dañ daan ñëw par exemple ne kan moo bëgg nekk président wala kan moo bëgg nekk secretaire wala kan moo bëgg nekk trésorier yu demee noonu su ko defee nit ñi ne par exemple kan moo bëgg kan mooy votel kii ak kan mooy votel kii ak kan mooy votel nit ñi yëkkati seen loxo li tax mu doon am loolu parce que jamono yi amuñoon maanaam ay këyit maanaam association bi am amuloon ay këyit tey nag yàlla dogal na ba association bi am ay këyit maanaam reconnaissance juridique lañ koy wax reconnaissance juridique boobu daf ñuy tënk maanaam lu tax mu ñuy tënk mooy élection mënatuñ ko organiser comme niñ ko daan organiser bu njëkk maanaam ay yëkkati loxo ak yooyu déedéet élection yi day lalu ci ay tex texte yooyu moo ne maanaam képp ku bëgg nekk candidat da ngay présenter sa benn liste maanaam ci sa biir liste da ngay am sa secrétaire am sa vice président am sa trésorier ak yooyu yëpp yaa ngi dégg su ko defee ñaar bu amee ñaar ba ñett ba ñeenti liste ñooñu ñu dem élection donc liste la ñu fal falatuñu benn nit bu njëkk par benn nit lañ daan fal mais léegi liste la ñu fal loolu texte yi moo ko moo ko moo ko moo ko wane maanaam dëkk nag boo fa nekkee euh, am sa association association yi ne ci dëkk bi yëpp maanaam noonu la ñuy doxee maanaam da ngay dox ci loi réew mi te loi réew mi moo waxee moo moo joxe loolu donc ñun mënatuñu kon ne di def maanaam ni ñu daan def maanaam dellu si en arrière parce que boo seetloo dañ daan xeex pour benn affaire maanaam ñu am suñu reconnaissance juridique maanaam autorité réew mi euh, xam ni sénégalais gi am nañu fi benn association boo xam ne mi ngi ci règle mi ngi ci maanaam mi ngi ci norme yi mi ngi topp norme yi am nañ seen reconnaissance juridique donc loolu dem nañ ba am ko ba yàlla jox ñu ko donc il faut ñu def li nga xam ne moom la loi argentine wax mënatuñ def li nga xam ne moom la loi Sénégal joxe même Sénégal sax loolu xëy na amatu fa donc loolu moo waral euh, bi Moustapha seen nga xam ne moo wut woon Aba Goudiaby bi mu demee ba jeexal son mandat benn mandat la bi muy bàyyi ñu def élection ci biir élection yooyu euh, xëy na amoon na fi coow bu ndaw mais ba finalement ba ñu ñu ñu élire ma bi ma ñëw si def samay deux ans yàlla def ren ñu war a renouveler bureau bi ñu war def assemblée générale ordinaire ñu toftal ci élection bureau parce que déjà ñun suñu mandat jeex na mais avant loolu euh, informé nañ nit ñi informé nañ ñëpp. ñi nga xam ne par exemple ñoo nekk ci dëkk bi ci réew mi ne képp koo xam ne bëgg nga nekk président wala bëgg nga occuper fonction ci biir association bi élection dina am le cinq décembre ci jour assemblée ordinaire bi yaakaar naa Babacar mbay mi ngi nii sax toog duma ma bàyyi ma fen euh, dem na ci jour màggal Touba bi bi ñu célébrer màggal bi jël na micro je pense que image yaa ngi fi lépp a ngi fi ba yëgal sénégalais ne ah assemblée kat dina am donc. képp koo xam ne par exemple amoon nga envie wala soxla woon nga par exemple postuler da nga waroon préparer wu en conséquence de cause nga ñëw laaj texte yi jéem a xam li texte yi wax su ko defee nga préparer wu parce que yow da nga bëgg ñu fal la président wala ñu fal la vice président wala ñu fal la leneen donc préparer woon nañ jéemoon nañ préparer sénégalais pour wane rek ne euh, ci biir association bi démocratie moo fi am parce que comme ni ma koy faral di waxee association bi du sama association du association Babacar du association Moustapha du association donc man ni ma nekkee sénégalais keneen noonu la nekkee sénégalais aussi am wàll ci association bi donc loolu moo tax ñu informer nit ñi aviser nit ñi ne leen kat élection dina am bon. biñ defee waaw. Euh, yi bu amee du indi coow ci diggante sénégalais yi ndax depuis bi association bi taxawee ak léegi euh, foog naa yaa ngi wax léegi nga ne tàllal loxo la ñuy fale nit ñi. kon bu ñu demee ba def ay élection ndax du indi coow ci diggante sénégalais yi. waaw euh, Assane euh, maa ngi doon ñëw foofu sax xëy na daw coow loolu sax daw coow loolu moo taxoon ñu reporter élection yi ba fi mu toll nii maa ngi ci doon ñëw xëy na dama yegg seegul woon parce que le 25 décembre bi mu jubee am na benn groupe bu defaroon seen liste bi ñu defaree seen liste ñoom ñu ñëw ñu gis ne list yi seen liste bi ñu présenté méngoowul ak li texte yi wax ñu leen ah yéen seen liste bi méngoowul ak li texte yi wax ñu delloo liste boobu changé waat beneen liste bi ñu beneen liste constat bi ñu def ñun mooy liste boobu aussi méngoowul ak maanaam li texte yi wax waaw te liste yooyu si daf ci am ay taxaw seetlu yu ñu ci def yoo xam ne du jëmale communauté bi kanam yaa ngi dégg bi ñu ñu bari woowee ci suuf nañu ah. coow li bari na bu ñu sañoon daal wax dëgg yàlla ngeen jéem a calmer affaire bi affaire yi ñu dàq élection yi ñu dàq élection yi mayaat leen yeneen 4 mois parce que dañuy wax bàyyi ba nit ñi dem été ba dellu si ñu présenté ñu door def assemblée générale bi defaat élection yi parce que su defee ñoom groupe boobu ñu mën a préparé wu jéem a rectifier seen liste jéem a rectifier ñoom seen taxawaay su defee ñu mën a bokk ci élection yi du càggan xëy na ñun bëgguñu ay nit bokk ci élection yi non bu doon dañ loolu lañ bëgg rek bu doon daw lu ñu démocratie kon ci décembre bi mënoon nañ def élection ne léegi ñii seen liste baaxul liste bii moo baax mu jeex mais nag dañoo bëgg ñëpp bokk ci mais tam aussi ku ciy bokk yaakaar naa da ngay topp règle yi dangay topp texte yi. nga bi ngeen leen may pour na wala euh, jox nañ ma liste démb jox nañ ma liste présenté nañ benn liste yaa ngi dégg léegi liste boobu aussi dinañ ko jël dem xool maanaam par rapport ak li texte yi wax ak ci ñi ñi jox aussi ñuy xool. ndax ñoom méngoo nañ ak li ñu li nga xam ne moom la teg si soxla wala déet li si dem ci guddi lañ ma ko jébal donc dinañ ko dem xool ko xool ko bu baax ndax liste boobu méngoo nag li nga xam ni moom la teg si laaj bu méngoog li teg si laaj amul problème dinañ dem élection loolu amul problème ñun fu mu toll nii euh, dem élection moom moo moo ñu gënal moo ñu gënal parce que dañ bëgg wan nit ñi ne lii démocratie fii démocratie moo si maanaam du loo xam ni ay nit dañ ko àkki moom Sénégal yëpp ko moom donc bu ñu señoon nit ñi présenter liste boo xam ne liste bu jaar yoon la ñu dem élection lu tax mënuñu par exemple bàyyi ku nekk ñëw joxe sa liste parce que aussi dafa am loo xam ne moom la inspection générale euh, de justice soxla boo xoolee ñoom seen première liste ki ñu présenté en tête de liste yàlla dafa def xëy na amul woon document amul woon déni donc loolu liste boobu boo ko yóbbu inspection générale de ça dañuy dañ koy dañ koy automatiquement dañ koy rejeté dañ koy rejeté dañ koy jël teg ko fële na leen lii liste bi valable yaa ngi dégg aussi liste bi boo jëlee liste boo xam ne ñi nga xam ne ñi ci nekk remplir uñu les conditions yi nga xam ne moom la a remplir pour figurer ci inspection générale de justice boo fa yóbbu liste bi te ci biir rejet boobu mën nañ dem ba reconnaissance juridique bi nga xam ne moom la ñu xeex ay 10 ans di avant ñu koy am mën nañ dem ba perte ko donc xëy na ñu bari xamuñu lu ne ci biir moo tax xëy na ñuy wax yenn yi mais ñun loolu la ñuy moytu association aussi ñu ko bàyyi ci ay anam yu mel noonu yoo xam ne xëy na ñun ñëpp lañuy yàqule donc affaire la boo xam ne dañ ko xeex pendant dix ans association yaakaar naa koy commencé ba ci at yu mujj rek da nga woote assemblée générale sax ak juróomi nit juróom nit ñoo daan ñëw yaa ngi ba tey ba association bi toll fi mu toll kon yaakaar naa ni liñ naan lu dul dëgg du yàgg rek mais association bi dëgg fay dox te loolu moo tax association bi ñëw tey am douze ans xam nga te wax dëgg yàlla ba tey jii ma lay wax nii mosuñu dégg foo xam ne wax dëgg nañ fa ŋàññi association bi ci par parloo wala yu demee noonu. mbokk yi ñu ñëw rek pour indi sunu contribution ci li nga xam ne si moom la le président Arfan Diédhiou euh, expliqué ci li nga xam ne si mooy mbiru association bi ni muy doxee waaw dafa fekk ni mbir moo gis rek daanaka dañ koy teg ci loi ak parce que vers les années 2007 2006 2007 ci la. taxawal kuréel gi nga xam ne si mooy ARSA euh, mu am doxin boo xam ne si noonu la doon doxee comme ne ko le président expliqué mais jamono di dox ba nu formaliser ko maanaam wutal ko ay këyit euh, ci kaw loolu léegi ñu war cee tënku léegi bi ñu ci tënkoo euh, yàlla dogal ñu ànd ak li nga xamante ne si mooy technologie bi ni muy doxee association bi chaque année dafay indi ay innovation ci kaw loolu ci leen gis ni danoo war a yaatal kuréelu association bi. léegi ci biir yaatal bi ci leen gis ni comme dëkk bi yàlla dogal na am na ay kuréel yu fi nekk lu ci mel ni daayira yi ñu gis ni am na solo pour ñu créer benn groupe boo xamante ne si ni groupe whatsapp la ñu boole ci lépp loo xamante ne si ni mooy kilifa yi nga xamante ne si yàlla dogal na ci wàllu diine ñoo fi toogal sénégalais yi ñu mel ni wàllu tijaan yi ak baay faal yi ak ñi nga xam ne mooy murit yi euh, ci kaw loolu ñu gis ni sénégalais yi danoo tas ci biir réew mi Argentine yëpp ci province yi ñu gis ni gox bu nekk kat war nañ faa mën a am ko xam ne moo fay toogal association ci kaw loolu ci lan fa créer li nga xam ne moo ay délégué ba tey jii nii foo dem ci Argentine ci province yu bari am na koo xamante ne si tey jii nii moo fa toogal association bi loolu dafay boole dafay yombal liggéey bi ci biir groupe boobu nan nga xam ne moom lañ créer ñu seetlu ni a chaque année comme assemblée générale ordinaire dafay am te chaque deux ans dañuy renouveler le bureau euh, ren nag particularité bi ci am mooy bi nu ko teel a annoncé pour xamal leen ni il faut que ren renouvellement bureau dafay am ci biir loolu am kuréel goo xam ne ci biir ñoom gis nañ ni ñoom ah ñoom war nanoo mën a jóg pour porter wu volontaire pour jiite li nga xam ne si mooy association bi ah ci kaw loolu ñun xamal leen ni démocratie comme mooy dox ci biir association bi ñu bàyyi leen ñoom ñu formé wu jox leen texte yi parce que texte yi nga xamante ne si vraiment moo fi nekk dafay xamle ñan ñoo ñi nga xamante ne si ñoo war a nekk ci bureau association bi parce que association bi sénégalais ñoo ko moom mais dafa am lu ñu tuddee membre actif mooy ñi nga xamante ne si ni guddeeg bëccëg suba ngoon ñoo ngi yëngatu ci mbiru association bi parce que mbirit boo ko xamul mënoo koo diriger moo tax texte yi dafa ne au minimum il faut nga nekk membre actif pendant six mois ba pare accomplir sa devoir devoir yëpp pour mën a nekk koo xam ne si vraiment mën nga prétendre pour jiite association bi parce que yaakaar naa ne mbirit boo koy jox danga nga koy jox ku ko xam daf ci am solo parce que association bi yegg na foo xamante ne si ne waroo jóg rek teg ko ci loxo yi ku la neex su ko defee dafay sooxeel liggéey bi donc ñun li nga xamante ne si ni moom lanu bëgg ak moom la moom la ñu doon sàkku mooy. ci biir yaatal bi mbokk yi ñëpp bépp sénégalais bu fi nekk nga ñëw nekk membre actif ci association bi jàng ci xamee ci ngir ëllëg buñ la joxee nga xam dafay doon li ñu tuddee continuité de lay doon nga xamante ne si ni mbir mi du am benn gàllankoor du am benn sooxe nga xam dañ koy jëlee ci loxo teg ko ci beneen loxo ci kaw loolu vraiment ñi nga xamante ne si nii ñoo jóg pour présenter wu pour jël association bi daanaka du ma ci delsiwaat le président wax na ko ñoom liste bi ñu présenté woon. Euh, dafa amoon ay dysfonctionnement mooy ñi nga xam ne moom lañ présenté wu ñooñu mënuñu woon a jiite association bi ci leen defaraat seen beneen liste indi ko léegi liste bi quatre personnes ba huit personnes la war a constitué wu mooy le président le vice président le secrétaire général le vice secrétaire trésorier ak le vice trésorier ba pare ak euh, vocal euh, titulaire ak vocal suppléant léegi comme ni ko la président waxee ñoom indi nañ seen liste mais texte yi dañi bu fekkente ne si nii élection dañ ci jëm danoo war a présenter liste yi vingt jours avant élection yi ci kaw loolu comme ñoo ngi jàpp datu élection yi euh, le vingt huit incha allah parce que le vingt et un leen ko jàpp mais gis nañ ni dafa am xew-xew boo xam ne si nii moo fi xew mooy semaine santé bi ñu bëgg a poussaat une semaine après pour may nit ñi pour ñu mën a dem ci élection yi léegi ci kaw loolu pour nga mën a voter il faut que au minimum nga am sa carte de membre ci kaw loolu defar nañ 2000 cartes de membre yoo xamante ne sii nii ñoo ngi koy jaay bépp sénégalais bu nekk fii nii am nga droit am sa carte de membre identifié wu ba pour jour élection yi nga ñëw pour mën a voter ci ñaari liste yi nga xam ne ñoo fi si ne présenté wu benn list bi ki nga xam ne mooy Xaadim Bamba Jonn moom moo dirigé liste bi mooy liste opposition bi beneen liste bi nga xam ne si mooy association bi nga xam ne si ñi ko dirigé woon muy le président Arfan Diédhiou moom moo dirigé benn liste bi ànd ko équipe léegi di xamal sénégalais yi ni leen ñaari liste yooyu noonu pour l'instant moom moo fi am léegi nag ci kaw loolu bis bu nu demee ba def assemblée générale ba pare léegi ci ñaari liste yooyu la ñuy tànn léegi vote bi nag ni mu daan demee du ñu demee du doon à main nga xam yëkkati loxo tàllal mais dan naa ñaari liste yi ñoo fi am su ko defee ñu vote vote secret lay doon ñu former benn commission boo xamante si mooy doon commission électorale bi nga xam mooy saytu bi pour xam ba xam mbir mi jaar na ci yoon wala jaaru ci yoon léegi su ko defee ñu dem élection bu ñu demee ci après assemblée générale bu ñu organiser élection yi léegi wàññi ñi nga xam ne ñoo voté ñu xool ci ñaari list yi ban moo ci ëpp majorité léegi gagné bu gañee élection yi après léegi kooku moom na war a jëmbal lenge yi pour mu doxal association bi. waaw bëggoon nañoo xam ndax ñoom bu ñu gagné li nga xam ne mooy lenge yi yéen da ngeen wëlbatiku jàppale leen topp seen gannaaw ànd ak ñoom yaakaar naa ne laaj bu am solo la. Euh, parce que association bi euh, ñëpp a ko bokk sénégalais yëpp ñoo ko moom amul murit amul tijaan amul xaadir amul laayeen amul chrétien amul protestant même ki gëmul dara te nekk sénégalais ci biir association bi la bokk donc bu fekkente ni si ni ay nit danoo bokk mbenn mbir ñu dem ba si biir am ñu ni ah ñun kat danoo bëgg jëlaat association danoo bëgg jël association pour diriger ko parce que loolu dinañ ci ñëw ci waxtaan parce que euh, mbir mi du dictature le président Arfan jeeju mi ngi ci droit am def na benn mandat texte yi may na ko pour mu jëlaajaat beneen mandat parce que association bi nan lay doxee ñi président yi fi nekk yëpp ñoom ñëpp danoo def ñaari mandat euh, Moustapha moo ñëw ni moom benn lay def bi mu defee benn mandat deux ans yi jeex mu jox Arfan Diédhiou léegi équipe bi Arfan àndal moom mu ngi doon liggéey bi mu liggéey ba pare moom gis na ni moom bëgg naa laajaat beneen deux ans yoo xamante ne si ni dafa bëgg a continuer doxal association bi léegi nag comme am na ñu nu liggéey bi ñoom ñu gis ni ñoom it danoo bëgg laaj association bi léegi bu ñu gisee ni texte boobu noonu commission directive bi nga xam moo fi nekk étudier na texte yi étudier na seen liste ba xam ne liste boobu valable na yaakaar naa ne continuité lay doon bu boobaa ñun li ñuy def rek mooy jébbal leen lenge yi vraiment ànd ak ñoom liggéey liggéey bi parce que ñun ay poste yëkkatiwuñu mais bokk ci association bi ba pare fas yéene jàppale sénégalais yi ànd ak ñoom ci li nga xamante ne si mooy doxal pour communauté bi jëm ca kanam pour association bi jëm ca kanam moo na tax jóg allah. bon ci laaj bi nga laaj sànq euh, li ma ci yokk mooy euh, comme ni ko Babacar waxee léegi du ay président wala ay secrétaire wala ay kii moo ñu tax a jóg euh, boo seetloo association man bi ma ciy dugg avant ma nekk président musuma am poste. bien que ñu bari sénégalais yaakaar ñu bëri yaakaaroon nañu man ñun ñooy diriger association bi quoi avant may nekk président mais mosuma jël poste parce que heure bu ñu ma nee jëlal poste ma li may def naa ko def quoi parce que sénégalais la et lii ñun ñëpp ko bokk quoi yaa ngi dégg ci loolu lay wax toujours ne association bi euh, bu kenn xaar ñu la ciy woo yaa ngi parce que association bi ñun ñëpp ko moom maanaam nit ki nag boo gisee dara loo xam ne yow ci nga bokk am nga ci wàll da ngay ñëw jege si lépp looy xeex nga xeex ko ci biir. GIE mais du association sénégalais yi d'un côté ak ñeneen ñi d'un côté non association bi sénégalais yëpp ko bokk donc tey bu damoon demoon élection supposons ñun ñu gagné ñu yaa ngi dégg mais qu'est-ce qui dara dara dara tax par exemple ma ne moom man dama ciy génnee sama loxo yaa ngi ci kaw association yi di dox ci ay normes yoo xam ne loolu moo ñu tax a jóg parce que aussi am na loo xam ne moo ñu tax di di di rey suñu bopp quoi di xeex yaa ngi association bi dafa di association boo xam comme ni ma ko rappalee sànq mosul am xaj ak seen yaa ngi dégg amul murit amul tijaan amul katolik amul joola amul séeréer amul lii yaa ngi dégg te boo xoolee suñu bureau ni mu composé woo defuñu ko ndax sélection jéemuñu sélection mais dañoo daje ci biir de boo xam ne dafa mujj conforme quoi dafa mel ni ñi dañoo waxtaan avant ñuy nekk ci bureau quoi parce que boo xoolee di nga ci gis tijaan di nga ci gis joola di nga ci gis tukulóor di nga ci gis ci gis euh, murit di donc affaire la boo xam ni ñun ñëpp a ko bokk maanaam bu kenn gis ne ñii man a ñii par exemple dañoo bëgg a jaar ni wala ñii bu ñu leen gañee kat eh, dañuy ñeeñ wala déedéet ñun tey bu ñu sañoon lu tax ñu ubbi woon comité ad hoc loolu damay dellusiwaat ci point bële maanaam chaque fois bu ñu daan organiser bu ñu daan def bureau dañuy kii ñi nga xam ne parce que bureau bi quelques personne ñoo ci mën a dugg Sénégalais yëpp dugg ci bureau bi mais benn comité bu naan le comité ad hoc comité boobu bépp Sénégal dañu doon ubbi liste bi bu ñu demee assemblée générale maanaam bépp sénégalais boo xam ne yow bëgg nga jege association bi di di di participer ci doxalin association bi ñëwal bind sa tur maanaam ñu choisir kenn dañu ne ñëwal bind sa tur des fois sax ñu ñoo woo ay nit di leen forcer di leen bind ci comité adog bi pour ëllëg ñoom ñu mën a remplir norme yi su ko defee ñun ñun tey waroon nañ par exemple euh, dem toog bàyyi ñeneen ñi les jeunes là ñi nga xam ne ñoo fi nekk yaa ngi dégg am am talent ñu ñëw par exemple diriger association bi. parce que ñun am nañ leneen lu ñu war a loo xam ne war nañ ko mën a defi yaa ngi dégg mais aussi comme ni ko kii rappelé sànq duñ ko jël rek teg ko ci loxo ku nekk yaa dégg donc il faut nga xam association bi moo taxoon ñuy ubbi le comité ad hoc comité képp kuy sénégalais fii Argentine mën nga ñëw bindu ci comité ad hoc bi dégg am na ñoo xam dañ leen dañ daan bind sax mais bu ñu la bindee jour boobu lañ lay gëj a gis te normalement boo ci bindoo da nga war a ñëw di cotiser am sa carte de membre ci réunion yi bu ñu wooyee bu ñu wootee assemblée wala réunion de bureau nga ñëw participer su ko defee nga xam association bi ni muy doxee pour ëllëg yaa ngi donc ouverture am na ci association bi léegi nag am na ñoo xam ne ñu ngi ne ñoom association bi dafa xaw a tëju gisuñu ci seen bopp c'est parce que ñoom ñoo ci bëggul gis seen bopp yaa ngi dégg man loo xam ne man wóor na ma ni man am naa ci wàll du ma xaar ñu ma ci woo yaa ngi damay ñëw jege si di xool nu muy fonctionner nu muy doxee bu ma amee lu ma ciy kaas ma am ma kaas yaa ngi donc ëllëg ñun bu ñu demee ba bokkatuñ sax ci association bi par exemple Euh, jiiteetuñu association bi aussi du tee dinañ jege association bi di xam nu muy doxee ak lépp lépp luñ ci sax luñ lépp luñ ci woo aussi laaj ñu ci ko ci danañ ci joxe suñu suñu suñu suñu xam-xam liñ ci xam. nañoo xam ndax euh, mbiru sénégalais moom xaalis daf ci am doole te lu am coow ci mbiru sénégalais rek xaalis moo koy indi ndax seen association bi kees gi xaalis bi ndax euh, lu ngeen génne yéen a ngi koy bind wala lu ngeen dugal wala kees gi am na xaalis am déet. waaw question boobu dafa dafa am solo. Euh, parce que jamono ji nu toll nii euh, lépp loo gis rek euh, dafay am loo xamante ne si ni économique moo koy moo koy moo koy fonctionner association bi association civile la à but non lucratif maanaam association bi warul di générer xaalis di wuti bénéfice maanaam lépp loo xamante ne si ni association bi am na ko ci ay biens rek ay cotisation lay doon wala ay dons. wala ay dotation yoo xam ne si association moom la war a am mais question boobu li tax ma sawar cee tontu mooy il faut que sénégalais yi ñu xam benn mbir mooy association bi d'abord volontariat la ñi nga xam ne si ñoom ñoo ko yor di ci liggéey kenn fayu leen ñaar danoo jël seen temps libre parce que loolu mooy association da ngay jël sa temps libre rek nga consacré ko ci association bi mu ngi mel ne ci bu ma jël exemple ci wàllu daayira nit ñi dañuy dem liggéey ba wàcc ba waxtu daayira jo ñu dem nekk ci daayira boobu parce que mooy seen activité ci seen wàllu religion noonu la mbiru association mel mais nit ñi dañu exigeant de de trop ci association bi mooy dan dañ lay dem ba def la genre fonctionnaire yaakaar ni yow 24 heures sur 24 da nga war a nekk ci mbiru sénégalais fekk na doxewul noonu sa temps libre rek ngay jël di ko consacrer ci mbiru association bi euh, association bi. dafa am problème de personnel am problème de fonds mooy problème de personnel mooy lan comme ni ko président waxee sànq comité adopt hoc bi nga xam moom leen ubbi pour woo nit ñi pour ñu jàng ci xam ngir ëllëg ñoom ñu mën a doxal mbir mi. deuxièmement problème de fonds bi ñu am mooy dan fay waxoon ay jamono ni chaque weer nit ñi dana war a cotiser dix pesos ci ay jamono ñu dem ba gis ni vraiment jamono ngi dox xaalis bi jëriñatul dara. ñu ni nanu cotiser kenn ku ne vingt pesos par mois mu nekk deux cent quarante année bi mais euh, boo waxee ñu ne non communication bi jàllul fekk na association mi ngi communiquer mais communication bi dafa am blocage ndaxte sénégalais mooy communauté bi nga xamante ne si nii daanaka li mu bëgg xam rek lay xam mais. nga baal Babacar ñu taxawlu ci li nga wax léegi nga wax ni maanaam ci temps libre ci lay jóg ngir dem. Mm-hmm. jàppale ki nga xam ne ci ay jafe-jafe gis nañ ni fii amul ambassade mm-hmm. yéen ne fi nekk taxaw en tout mm-hmm. temps it sénégalais ñu ngi leen di soxla ndax kon matul ngeen organisé ba sénégalais yi di génn loo xam ne tey mën nay fay ki nga xam ne mooy président ba bu ñu ko soxlaa mën a jóg ndax it am na aide boo xam ne mi ngi jógee tey ci président maanaam état bu Sénégal wala état bu Argentine di jëm ci yéen ba ñu leen soxlaa ngeen mën a jóg bu fekkoon tey ah wala bu daggee benn journée mën a gañe ci loolu tey loo xamante ni mën a remplacé waaw maanaam ci question boobu noonu dafa am loo xam ne si nii comme loi ak règlement moo nu tënk mooy association bi amuñu droit di jël benn membre am di ko fay loolu loi bi da ko tere mais association bi mën na am li nga xamante ne si ni mooy secrétariat permanent maanaam jël koo xamante ne si nii dañ koy day day nekk en permanence ci lu tudd li ñu tuddee siège association bi parce que boo xoolee ci sunu mandat bi nga xam ne moo jeex. Euh, daaw ci assemblée général bi danoo amoon xalaat ñu ne comme amuñu fi ambassade amuñu fi consulat donc association bi lañ fi am te mi ngi fiy def liggéey boo xamante ne daanaka yaakaar naa même bu fi consulat amoon wala ambassade sax du ko def parce que association bi moo gën a jige sénégalais yi parce que réew yi am ambassade ak consulat sax teewul danoo am association donc ci kaw loolu ñu ni woon na sénégalais bu nekk joxe trois 300 pesos bu nu ko dajalee su ko defee ñu mën a benn siège boo xamante ne si képp ku soxla association foofu ngay dem directement. lépp loo bëgg a xam ci association foofu ngay dem mais bi ñu ko defee ci jour boobu noonu am na ñu jot a cotiser donc information bi jàll na ñu jàllale ko ci réseau sociaux yi mais ñu gis ni dafa am gàllankoor loolu nag dafay wane ni association am na côté boo xam ne si ni dañ koy d'accord mooy mi ngi ciy sooxe léegi nag foofu noonu euh, yaakaar naa ni état bi du Sénégal euh, yàlla dogal na ñu am chance boo xamante ne si nii ki nga xamante ne si mooy le la république son excellence bi mu fi ñëwee ci mois d'octobre. ci Jeux olympiques de la jeunesse bi ci Argentine yàlla dogal ñu toog ak moom bi ñu toogee moom après ñu soumettre ko proposition yi nga xamante ne si ni daanaka jafe-jafe yi nga xam moom la Sénégalais yi di dundu man a jàngat bi ma am ci tontul président mooy moom li mu wax mooy ambassade Sénégal bi nekk Brésil mooy nekk en même temps ambassade du Sénégal fii ci Argentine donc mu proposé woon ñu ni dinañ fi ubbi benn bureau consulaire fii ci Argentine pour mu taxawu sénégalais ci li nga xam mooy wàllu administration. donc euh, ci côté boobu noonu association bi mënuñoo toog ba 10 ans wala 12 ans comme ni ko le président waxee association bi am problème mu xaalis parce que lépp luy dox actuellement xaalis moo koy doxal parce que man jàpp naa ni waroon nanoo am benn siège. amul benn aide amul benn aide buy jógee fii nii xanaa ay organisme yoo xamante ne si nii gisoon nañ association bi may ko ay matériel lu ci mel ne ay ordinateur ak yooyu noonu matériel didactique lañ koy tuddee ci wàllu loolu li nga xam mooy wàllu secrétariat bi association bi am na benn doom boo xam recevoir na ko mais ci wàllu xaalis économiquement association bi amul benn xaalis lu dul à part cotisation yi nga xam ne si yenn membres yi doon nañ ko def ak carte de membre yi nga xam moom lañ doon jaay yooyu noonu dafa daan mujj di jógaat di demaat ci problème mu sénégalais yi donc cotisation yi ni ko nit ñi war a respecté respecté wu ñu noonu li nga xamante ne si ni association bi moom it waroon na ko mën a def ci euh, générer ay ay fonds loolu dafa xaw a manqué ci association bi. ñaata membre ñooy dox bu baax tey lim bi ñaata ñi nga xam ñi ngi yaakaar naa ni bu dul directive bi euh, te bëriwul donc sénégalais yi ñi nga xamante ne si après chiffre exact bi moom jàpp ma ko. ci ci xayma yaakaar naa ni. bon ci xayma boo xoolee ñi dox normalement di jënd seen carte nekk en nekk à jour. Euh, boo xoolee exactement ñiy dox par exemple nekk à jour. Euh, bo décembre bi passé boo ko xoolee matul deux cent personnes ci ci lu ëpp quatre mille personnes yoo xam ne ñu ngi ci réew mi yaa ngi def nañ ci <coughs> jàngat chaque fois yaakaar naa chaque fois ñu ngi ci def euh, jàngat di xool lan moo tax sénégalais yi par exemple du ñu ñëw euh, participer di joxe seen participation association mais loolu boo ko seetloo c'est général maanaam association sénégalais yi nekk ci àdduna bi yëpp pratiquement sénégalais xëy na moom la yàlla bindee noonu yaa ngi dégg maanaam tant ko demul ba am soxla ci association bi rek pratiquement loo ko laaj ci association bi du ko joxe. xam nga yéen ngeen jéem a wut solution comme bu ñu xoolee tey daayira yi ni muy xumbee dañuy faral di wax ni Sénégalais dafa bëgg xumbi maanaam dana ko dugal ci mu dugg dara mu ngeen di def ay programme ngeen jéem a xaj ci xam ngeen gën a jegante encore mosu nga loolu aussi wax nga dëgg c'est-à-dire chaque jour mooy ni ma wax sànq rek chaque jour ñu ngi xool yeneen moyens yoo xam ni Euh, dinañu dimbali par exemple sénégalais yi gën a jege jege si association moo tax ma ne rek association bi association ñëpp la maanaam képp ku am idée boo xam ni par exemple mën nga ñu ko baaxee pour euh, ñu mën a régler yenn solu yenn problème yi aussi euh, vraiment dañ koy soxla boo xoolee du benn yoon du ñaari yoon ñu dem ci ay ay ay ndaje ay gàmmu ay màggal toujours di fa ay waxu association bi te am na loo xam ne aussi ku ci nekk yow yaa ko war a jàng xool xam ni kat li li li lii am na jariñ yaa ngi dégg gis nañ fi cas de yi fi am ak yu demee noonu xam nga am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla association bi taxaw nañ leen taxaw na leen ba wax dëgg yàlla seen ajo faju mais xëy na boobu lañ gëj ci association bi